jërëjëf euh, yaakaar naa ne euh, ci jataay bu mel nii euh, def bilan dina jafe ndax atum doxalinu hôpital moom mëne su ko def bilan ci ay simili waaye li ñuy njëkkee mooy sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi sant sëriñ bi ci bi ñu yàlla mayee ñu fekke ren après at boo xam ne ànd ubbi nañ ko hôpital bi ànd ko ak ñi ñu ko nekkal muy euh, agent yi nga xam ne ñu lañ fi affecté woon ak agent yi nga xam ne dañ leen recruter euh, li ma ci mën a wax daal mooy euh, ñun en tout cas en tout cas man en tant que directeur hôpital bi am naa mbégte ci di wax ni hôpital bi bu mu ubbeek léegi ci at la toll waaye service yi ñu fi fekkoon nga xam ne ci njëlbeen ko ni ñu doon wax ñetti service ay mën ubbi wala ñeent di def hôpital hospitalisation du jour lool deux mois lañ ko def daal di commencé di hospitaliser boobaak léegi it op service yi dañ leen ubbi benn par benn ba fii may wax ak mel na ne ñaari service ñoo ubbeeku euh, ñun bu ñu koy tënk ci ay këyit dañuy ne ñaar fukki service waaye ëpp na ko parce que am nañu ay sous spécialité ci yenn service yi te ñooñu dañu waroon nekk ay service boo jëlee lu mel ne neurologie ak neurochirurgie ñaari service yu bokkul la waaye ñun dañ leen boole ci benn service donc hôpital bi service yi bare na waaye ci tënk ñaar képp ñoo ubbeegul benn bi problème technique la ndax ndox mi nga xam ne muy muy euh, muy service su euh, dialyse bi néphrologie ndox mi nga xam ne day jóge ci service su dialyse day bare mais ñi doon defar hôpital bi waajaluñu woon ndox moomu fu muy jëm te nañu ko defe woon génne ko ci gannaaw mur bi ci gannaaw hôpital bi bu ñu ko bàyyee noonu mën na indi ay jéer moo taxoon ñu ne nañu négandiku te def ay pexe pexe yooyu ñu ngi ci tabax nañu euh, benn réceptacle bu mag boo xam ne dañ koy tëj am ay puits perdus yaakaar naa ne buñ ko mettre en service la ca des mooy wax ak ministère mu yónnee ñu personnel ñu tàmbali service su dialyse bi kon yaakaar naa ne loolu mën naa bañ a yàggati bi ci des mooy service su euh, euh, grand brûlé grand brûlé boo koy xool day service boo xam ne service bu xaw a complexe la euh, ndax paj mu complexe la malaat yi niñ leen di manipuler rek xaw na jafe ba nga xam ne dama jàpp ne ña fay war ne lijjanti leen ñu dem foo xam ne gis nañu service buy dox di service su Grand Brûlé ñu def fa ak diir stage fa xool ba xam ñooña nañuy doxale lëkkalook ñoom aussi ci liggéey bi bu ko defee bu ñu dellusee bu ñu ko ubbee dinañ mën a def lu ëpp ñeneen ñi li ñuy def ndax service su grand brûlé bii ñu am fii service la boo xam ne c'est un service aux normes yaakaar naa ne mosoon ngeen ko visiter li ci des mooy euh, personnel bi personnel bi euh, euh, gis ngeen ne bi ñu ñëwee njëlbeen gi yëpp ci ay formation lañu nekkoon ci ak ay waxtaan ngir seet nu ñuy organiser woo xool nu ñuy nu ñuy doxale hôpital bi ba juboo ci li nga xam ne mooy essentiel bi mooy fexe ba ku fi dugg xëy na la ca la cay suñu warugar ñun ñu def ko nañ ko war a defee te it li nga xam ne mooy wàllu accueil bi muy wàllu hygiène bi muy wàllu maintenance bi ñu góorgóorlu yëpp ba bu ëllëgee kenn du ñu ci mën a yaakaar naa ne ba ñuy ubbi ñu baree bare ñu ngi doon wax hygiène ba fu muy toll maintenance bi fu muy toll waaye yaakaar naa ne yéen apprécier ngeen seen bopp loolu def nañ ci liggéey yu mag kon li ma mën a wax rek mooy man en tout cas am naa mbégte ci fii ñu toll mën naa ne sax yaakaaru ma ne woon dinañ mën a agsi fii ci benn at am naa ci mbégte mbégte bu rëy rëy rëy yaakaar naa ne loolu moom euh, mën ngeen génn peut-être laaj patient yi fi nekk muy faj muy mooy malade yi fi nekk bare na ci ñoo xam ne jógewuñu Touba ñii ci yeneen région yi du ñu jóge am na ci ñoo xam ne dakaar lañu jóge parce que dele délai de rendez yi xëy na mooy gën a jege bare na ci ñoo xam ne foo ñuy jóge dafay sore lool kon waxuma la Touba rek waaye eh, ñi ñu wër sax yaakaar naa ne hôpital bi mën nañ ko jëfandikoo tey boo xoolee spécialités yi wax naa ko sànq euh, euh, service yëpp ay spécialistes ñoo fa nekk waaye ci biir service da nga fay fekk ay sous spécialité boo demee tey fu mel na pédiatrie da nga fay fekk ay chirurgien pédiatre pour le moment dañ leen dajaleen di parce que loolu stratégie bu ñu jël la pour mutualiser un les espaces et le personnel ba keroog ñuy am doolewu ñu autonomiser ñëpp mais spécialistes yi moom euh, yaakaar naa ne ñu ngi sant yàlla liñ ci waroon am am nañ ko ci. hôpital Cheikhul Khadim euh, xeex bi ñuy xeex cancer yàgg na ba mu ubbee ba léegi defe naa ñu ngi ci euh, chimiothérapie bi commencé na bu yàgg fan yii rek triplé nañu suñu capacité yi Euh, jël nañ fi en charge it ñu bare lenn rek moo desoon mooy radiothérapie bi radiothérapie bi nag ubbi bi dafa ajuwut ci ñun dafa am ay tests yu ñu ciy def am ay formation yu ñu ciy def am ay autorisation yu ñu ciy délivré yoo xam ne ajuwul ci ñun ajuwul ci ministère bi kon ci loola la ñu nekkoon ba fi ñu nekk nii cate na jël nañu lu tolloog juróom-ñetti malade yoo xam ne ñu ngi leen di defal ay test bu paree ministère de la santé dina ñëw lancer officiellement donc activité bi bu ko defee yaakaar naa ne euh, dinañ mën jël nombre yu mag di leen traité ña nga xam ne xëy na euh, amuñu place Dakar dinañ mën ñëw fii ñi ñuy dépister fii aussi dinañ leen mën a jël en charge entretien bi ak bi accueil bi loolu def nañ ci liggéey bu bare liggéey bu mag parce que gis nañ ne hôpitaux yi bokk na ci li ñuy jàmbat nit ñi bu ñu fa demee nit ñeen di recevoir nit ñuy waxe ak ñoom loolu nag dañ ci def liggéey bu rëy ba teg benn dispositif boo xam ne dañu koy xool bés bu ne di ko saytu itam ngir mu bañ am benn faay ndax waroo ñëw ci hôpital ñu lay jànni wala ñu la fay wax loo xam ne lu lay naqadi lay doon loolu moom ñu ngi ciy góorgóorlu entretien bi itam euh, lu am solo la waaye moom itam dafa laaj vigilance ndax ay nit rek lañ ko dénk boo bàyyee boo relâché yow ñoom ñu relâché donc euh, ñu ngi leen di surveiller régulièrement te fi ñu nekk nii euh, euh, service bu ci am problème ci côté boobu muy ci euh, maintenance bi muy ci muy ci hygiène bi am nañu moyen ci benn logicielle bu ñu am boo xam ne ci saas yi ka nga xam ne am mooy point focal bi bu ko bindee ci saas yi danaa ci jot waa maintenance dinañ ci jot ku yore hygiène bi itam da ci jot ñu daal di ko saafara ci saa si loolu itam effectivement coût bu am sol bu rëy la waaye yaakaar naa ne ci paj mi la bokk euh, li ci des mooy euh, prise en charge li nga wax mooy délai de prise en charge yi ndax malade yi dañuy ñëw léeg-léeg euh, toog lu yàgg balaa ñu leen di jël en charge muy ñu war leen opérer war ñu war leen defar ak leen loolu itam dañ ci def liggéey def ci ay waxtaan yu yaatu séq kook ñi ñu ko séq war a séqal séq kook médecins yi ak spécialistes yi fexe ba itam waxtaan ak ñoom ci ñu décloisonner service yi parce que day mel na léeg-léeg dañuy ne man nangam laay def ca loola laay yem ku ma soxla yi da may fekk sama service décloisonnement bu li muy indi mooy tey médecins yi di liggéey ñoom di àndandoo ci li ñuy liggéey mu am benn euh, euh, benn benn déggoo bu ñuy def boo xam ne tey bu malaat ñëwee urgence urgentiste bi xool ko ne cardiologue bi war na ko gis gastro-entérologue bi war na ko gis fi saa si daf leen di woo ñoom dañuy dem fekk ko fa mu nekk loolu dara du ko du ko tardeel même bu dee guddi am na ñu ay pexe jëli leen ñu ñëw xool leen buñ leen waree opérer ci guddi gi ñu def ko loolu nag euh, réduction wu délai de prise en charge boobu yaakaar naa ne combat bu am solo la ñu ngi ci def ay jéego euh, pour le moment euh, vraiment amuñu ci benn jafe-jafe au contraire yaakaar naa ne euh, ñu ci bare dañuy wax ne jaaxle nañu sax ndox bi ñu ñëwee diggante bi ñu ñëwee li ñu fi defal yëpp yaakaaroon nañ ne duñ ko fi mën a am loolu nag ñu ngi ciy veiller ak di fexe nuñ ko renforcer. à subventionner la le traitement du cancer mais dafa am yoo xam ne nit ki itam moo koy jëlal boppam en charge te bu malaat ñëwee. diggante bi ñuy xamee ni kii cancer la am dinañ ko ci demander ay analyse demander ko ci ay rajo loolu euh, cher na mi ngi dépendre ci yan analyse la def ak ñaata analyse la def ak yan rajo la def mais li may attirer seen attention mooy nous sommes un service public et donc bu fekkee ni nit ki dafa ñëw ñu de teg ko loo xam ne wala ñu facturer ko ci li ñuy def loo xam ne moom antanu ko am nañu service social bu ñëwee dinañ def enquête lañ ko ca mën a jàppale danañ ko ci jàppale loolu systématiquement dañu koy def ci ñi nga xam ne euh, donc seen loxo jotul seen diggu gannaaw. wax nañ ci ak kilifa yi yaakaar naa ne comme ni ma ko waxee sànq bu ñu génnee hôpital bi rek la ca des moom ci ñeneen lay aju donc li ñuy mën wax mooy attirer seen attention te ni ñu attirer seen attention noonu la malaat yi aussi attirer seen attention ci aspect yooyu yaakaar naa ne ay saafara dina ci am ndax. kilifa yi ci seen bopp gis nañu yoon wi ni mu jafee ambulance bu duggee foofu balaa muy génn day am problème non seulement charrette yi mais itam war nañu wut beneen yoon woo xam ne day jóge ci hôpital bi dugg ci biir dëkk bi te du jaare garage Daaru Musti loolu yaakaar naa ni itam xëy na ñu ngi ciy def ay ay jéego yu mag a mag mënuma jeexal nag te remercier wu ma euh, ñi nga xam ne euh, ñoom lañu ñu liggéey bi d'abord d'abord euh, le président de la république mi nga xam ne moo fi def bi hôpital bu affluence bi mu am wone na ne mu mënutoon ñàkk la euh, euh, ministère de la santé li mu mënit ci taxawaay mi ngi koy def suñu diggante ak ñoom di ci góor góorgóorlu euh, ñi nga xam ne moom la ñu séq liggéey bi fii ci hôpital bi itam muy personnel bi maa ngi leen di gërëm gërëm bu am tàmbali waaye amul fenn fu mu yem ndax diggante bu gàtt bii Euh, fii nu toll bu ñu amul woon pas-pas ci li ñuy def amuñu euh, itam dogg ci li ñuy def yaakaar naa ne fii ñu toll duñu fi toll duñu fi agsi loolu nag beraluma ko kenn administration beeg médecin spécialiste yi médecin généraliste yi infirmier d'état yeeg ñiy ñii ñiy accueillir rek ñoom ñëpp wax dëgg yàlla maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaaxaat nag di leen xamal ne am ay ak yi baax na waaye faxe ba maintenir ko moom mu ëpp solo ci loolu laa leen di woo jërëjëf